yéenekaay yi ak da ngeen jëf Barthélemy Toye Dias mi ñu woolu woon démb tribunal ci ginnaaw bi ñu ne ko na bàyyi ba àllarba benn fan ci décembre muy soog a ñëw l'observateur xëy na ñëw ak ñun ci li waral ñu renvoyé procès ba ubbil yéenekaay bi Cheikh Macky yu si bi bokk ci ñi ñuy tudd ci histoire ba moo sàkku ñu renvoyé ko li tax mi ngi koy wax ci l'observateur nee moom ab revenu la dafa soxla avocat bu ko taxawu te avocat yi mu amoon ñu ràññee ca maître El Hadji Amadou Sall gisatul ci avocat yi kenn moo tax mu ne tribunal bi na ko may mu wut beneenub avocat li ko boole ci coow li moom Cheikh nee na moo yóbboon ñoom dem si yàlla Ndiaga Diouf ca mairie bu Barthélemy Dias ba ñu fay dem fitna mbaa fitalante yóbbu leen fa woon ca jamono jooje Barthélemy Dias da doon dëkkee song ak di menacer ay kilifa yu Macky Dia mu jox ko sàkku ci moom mu dakkal tëkku yi muy def autorité yi Cheikh Macky yu siibi ne du woon Barthélémy Dias rek siibale woon ndax ba ñuy dem ca moom am na ñeneen ci ñun ñu demoon kër Alioune bi ñu yegsee nag ci mairie bu Barthélémy Dias ci la ko ñenn ci aw ñoñam ne am na ay nervi yu fi nekk te yow la songu si Barthélémy Dias génn ki fitalam di tiire ci suñu kaw ba gaañ ci ñun juróom Ndiaga Diouf ca la bokkoon ay gaañu-gaañu yu métti Abdou Diassé fa la ñu teere ji ak ñoom muy Barthélémy Dias di Ousmane Sonko di Khalifa Sall di Alaaji Malick Gakou ñoom ñëpp la jàppoon ginnaaw bi ci leen bàyyi waa CICN ak waa BIP ñoo lëkkaloo taxaw jàmmaarloog ñi bëggoon a manifester dina kay mel ne ku naan li ñu naan doole doxul jàmm loolee moo dal waa yeewee ci seen mobilisation beeg seen résistance ak manifestation gi ñu doon woote force de sécurité yi ñoo geetaru ba dëgër taxaw ci seen manifester ci wedeen bi ba taaloon fay pëna bu dee woon démb mooy deuxième vague gi Ousmane Sonko doon wax Vox Populi nañu deuxième vague ba lajj na muy Barthélémy Dias di Ousmane Sonko di Malick Gakou di Khalifa Ababacar Sall daj nañu ci bëccëgu démb bi ci dëkk bi lu mburu dajul cib taal dóor nañu leen ay lacrymogène dàq ji leen ci mbeddi Ndakaaru yi jàpp leen ñoox leen ci wata police bi yóbbu leen camp Abdou Diassé ginnaaw bi ca lañ leen libéré libération nañu ñiy jàppal tànk coalition Yewwi Askan Wi bi ñu déggee Khalifa ngi ñuy wax ne bi ñu koy arrêté jël bu rëy bi mu daanu mbagg mu wekkeeku la ca jële suur soi nañu muy Barthélemy Dias di Ousmane Sonko Khalifa Sall Alaaji Malick Gakou ak compagnie seen résistance gi ñu woote woon démb wéet nañu ca waa Ndakaaru dañu leen a faalewu leen ñoom ñëpp xëy nekk ci seeni muraada ñi leen toppoo néew bi grenade lacrymogène yi tàmbalee tàkk ci la ñu njool mi daw wëqet ñoom baxte ak Ousmane yi doon jaay fit l'observateur nañu waaye moom Barthélémy Dias dégg nañu ko ginnaaw bi mu ne lam waxoon du ca jóg ku ko woowati tribunal ndax waxi Ndiaga Diouf du la faale enquête dina kay nañu ñoom leader yu yeewi askan waa Benno Bokk Yaakaar yàkk nañu leen démb musiba mbelengaan déclaration bi Wali Fall def démb ci seenu tur loo xalaat rek wax nañu leen ko ca dem nañ ca bay wax ne leader yu yeew ay taalkati réew lañu yu seeni pexe na sax mënee suta bëgg a def politique bi ñu juróomi milliards yu teg ñaari téeméeri millions yu ñu dogal ministre intérieur Antoine Diome ngir gouvernance électorale am na it ñeent fukki milliards ak ñaar yu ñu natal ministre Abdoulaye Seydou Sow ngir mu ñoŋal cadre de vie bi ak fukki milliards ak juróom-ñeent yu ñu yokkal ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr crédit bu toll ci ñaari téeméeri milliards ak fanweer ak juróom lañu ko natal ngir mu gérer santé bi ñi war a gën a sant yàlla ñooy fukki xale yu jigéen ak juróom-ñaar yi ci libération Sierra Leone lañu fekk baax ay nit ñoo leen jëloon bëggoon leen a yóbbu Liban waaye ba ñuy embarqué démb ci aéroportu Diass fa lañ leen arrêté mbir mi libération nañu mafia la boo xam ne dañuy dajale ay xale yu jigéen dig leen liggéey bu baax ca Liban bu ñu leen xasee ba yóbbu dañ leen di forcer ñuy jaay seen bopp waa ji leen doon recruter yéenekaay bi nee nañu ab doomu Sierra woon la bu tudd Abdul Fofana gaa ñi jàpp nañu ko ci Wakhinane Nimzatt